ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo sàggal leen ziar leen ñanal leen jàmm ju sax dàkk noonu la ñuy demee ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñanal leen jàmm ñaanal ko nag suñu sëriñ bi si di mu ab du la xaat Mbacke yàlla suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam bis ko si biir këram. da koy ñaanal mboolem xalif ci biir réew mi yëpp di képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy bàyyi xel jamono ji rawatina nag suñu mbokk yi fi nekk fële bi bitim réew di bàyyi xel saay su nekk rek l' émission des émissions ñu fas yéene ci ànd ak Alaaji Sanjogu Meng ma ko nuyu ko nag moom Baye Assane Mesere mi nga xam ne saay su nekk rek. def ñuy teg pression ci bile émission Aïcha ñu daal di koy nuyu moom euh, Sanjoogu bàyyi ko mu nuyoo kenn internautes yu suivre solution TV solution info alaaji kàddu gaa ngi noonu. ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow. Mm-hmm. dem ba Touba nuyu xarit général des Mourides sëñ Mountakha di ko ñaanam yàgg fi ànd ak wér waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit. Mm-hmm. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko siyaar wér nuyu Sëriñ Xaadim nekk ca kër ga ak njaboot ga yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makaarimul Axlaaq di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm voilà di am mbégte sénégalais yi nekk ci biir réew bi ak ña nekk ca bitim réew di am ci ñëpp mbégte ak kontaante ak sunu mbokk gambien yi mm-hmm. nga xam ne fu ñu toll ñu ngi ñuy bàyyi xel di ñu teewlu di rafetlu bu baax a baax liggéey bi donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm. jërëjëf ayca jërëjëf euh, Mbengue euh, tey nag euh, suñu waxtaan wi ci l'émission des émissions daanuñu ànd ak yéen nag ci kàddu yi nga xamante ne nii kii di ba Badara Gajaga yëkkati na ko fële ca émission bi ñuy wax jàkkaarloo ca TFM par rapport ak euh, relance relâchement bi am ci euh, diggante patriotes yi ndaxte euh, joxe na ay explication jëm ci saay suñu daan àtte ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Sonko mu demoon ba préfet da doon génne ab ndogal ay arrêté yoo xamante ne ni moto yeeg Dakar dem dikk yenn activité yu bëri da daan taxaw ci biir réew mi nee na nag bi ñu nee Ousmane Sonko radié nañ ko définitivement boobu la nemmeeku que ni euh, am na ak bàyyite léegi léegi daañu ci ñëw ànd ak yéen ci nu mu gën a yaatoo Dame Mbodj nag euh, yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci Anta Babacar Ngom. moom mi nga xam ne nee na nag Anta candidat système bi la te nee na kenn xamu ko woon rawatina nag bu ñu demee ba Bassirou Diomaye fay Anta Babacar Ngom gën le ko parrainage war na nekk loo xamante ne ni lu ñuy saytuwaat la. jeexalee ko ak Guy Marius Sagna révélation yi mu def jëmale ko ci conseil constitutionnel ñu ràññee ci nag Badio Camara mi nga xamante ne ni am na ay kàddu yu mu yëkkati woon nee na nag. conseil bi dafa inventé yenn mbir yi nga xamante ne ni jëm ci wàllum parrainage beeg seen clé USB yi ni mel léegi léegi daañu leen ko tegal ngeen déglu ko su ko defee alaaji daal di ci ñëw ak ay xalaatam ñu dooree ko ak ba Badara Gajaga kàddu yu mu yi ñu dem déglu ko dellusiwaat. nañu dialogué à un moment donné nañu waxtaan mais ils ont eu raison sànq damay seetaan Habib Sy muy wax mais Habib Sy bi ma ko déggee mu ni Lat bi muy dem déqale da mais xamoon na ni day dee. waaye daf doon sacrifié wu. mu ni Ousmane tamit loolu la def mu koy comparé. mais yow nan ngay ànd ak nit. pour moom mu sacrifié wu mais yéen da ngeen dund quoi moom. kon yéen moom dangeen di dund mu jox la ay député yow nga dem doon candidat moom ngeen xam ni day sacrifié wu quoi kon Barthélemy Diaz mu ni ko woon Ousmane man damaa diwoo diwlin kii du dem yóbbaale ñu am na fu ñu toll nañu waxtaan est-ce que kooku gënul sincère que kii toog tey Habib si mi toog ni Lat Dior déqale ba muy dem xamoon na day dee mais dafa sacrifié wu Ousmane est généreux moom maanaam comparé wane ni Ousmane moom xam da doon sacrifié wu quoi après yow Habib nga toog doon candidat ni man kenn mënumaa taqal dara Ousmane lu mu ma xool rek xooloo rek laay xool pour que nga nekk candidat mais yéen a ngi xalaat tey foofu Ousmane Sonko mujje ak tong-tong bii ñuy xalaat derrière lui quelqu'un comme Habib tey di xalaat bu Pastef jàllul moom ki suy ci ñi fondateur u système wu Sénégal nekkoon directeur de cabinet wu ah Abdoulaye Wade maag malal ñuy xeex ak ñeneen ba 17 morts am ci nekkoon directeur nekkoon ak xalifa ah, Sall est-ce que nekkul même directeur de cabinet benn moment incarné li waa Pastef yëpp naan le système tey nga ni yow waa Pastef man mën naa nekk candidat système bi egg ci ba naan Habib Sy waa Pastef jàpp leen ni projet bi du yéen rek ñun mën nañ leen ko defal ci même vidéo bi ma seetaan Habib Sy mu ni mën naa doon président wu transition fii dañoo nekk guerre fii Sénégal dafa nekk guerre wala dafa am lu fi xew man lu ma yëgul ba ñuy transition Sénégal mais ñun ñun ñuy wax nu ñu boolee élection yi wàññi xaalis def élection benn moment dem jàll ci leneen mooy li Charles di wax léegi ba ñu nekk ci benn benn situation en n'en plus finir mais l'économie doit marché yow nga ñuy xalaatal na yow da ngay ñëw pour président de transition Habib dans sa communication ci une minute transition bi nee na six mois ci une minute mu mën na dem sax at ma ne ko yow boo toogee def ko dix ans parce que jubóogoo sax ak sa xel parce que mais fii dañoo nekkul guerre bay transition transition vers quoi ay jërëjëf euh, <laughs> Modou Diouf alaaji dégg nga comme ni ma la ko waxee rek ci ndoorteel li euh, Badara Gadiaga nag nee na dafa nemmeeku benn bàyyite euh, jëm ci askanu Sénégal li ko waral mooy bi ñu waxee ne Ousmane ko mënul bokk ci élection yi jour boobu jëluñu benn ndogal par rapport ak ci bus yi doon ñàkk daw moto yeeg yeneen yi ni mel activité bi nu mu doon taxawee daal di mel ni lu indi ab jaxasoo après ci la ñëw nag ci kàddu yi nga xamante ne ni Habib Sy yëkkati na ko ci wàllum élection yoo xamante ni mën na ko gagné mais bu ñu toogee six mois daañu tëggaat yeneen i élection waaw topp moom <laughs> dafa dagg dafa <laughs> dagg l'essentiel bi li nga xamante mooy li ci ëpp solo waaw mais xam nga Badara Gadiaga euh, mérité wut sax fii mu toog. ah parce que fi mu toog dañu ne dañuy jël ñi xam ñu teg leen fa. Hmm. mais moom dafa xamut walla ñu teg fa ñi yëg ñu yëgle waaye yëgut boo xamul yëgoo nag boo toogee boo waxee rek nit ñi ne ca mbay. parce que dañ naan ki wax xamul yëgul parce que dafa am lu am mais li am da ngay wax ne lan moo tax mu am parce que dafa wax ni relation bi daf ne dañoo bàyyeeku mm-hmm. wala dañ ne leen bàyyi leen defe naa ni ñëpp dégg nañ Ousmane ko def déclaration ne bu kenn xeex bu kenn xuloo patriotes yi toog leen xàppi jàpp seen njàmbur parce que waa ji lim bëgg kenn du ko ci fekk na ñëpp àndandoo focus ci li nga xam ne mooy l'essentiel muy élection yi ñu jëm bu fi kenn xeex bu fi kenn xuloo booy yi di def poste fu ñu toll xeexuñu bu ñu kenn tàppaas ñun xeexuñu xuloowuñu ku sa xol naqar yaay seet waaye ñun xeexuñu ah, léegi loolu bu amee ginnaaw xeex ñi xeexuñu la gaay wax oto yi waruñoo mën a daw cag-cag yi waruñoo mën a def li ñu war a def parce que ay nit ñuy déglu ndigal di ko topp la moom loolu da ko waroon a tiital dafa waroon a wax ne ah ñi daan xeex de bi Ousmane Sonko ne baleen bu fi kenn xeex bu kenn xuloo ñoom dañ ne xeexatuñ wuñ mais bu tëddee loolu ak bàyyeeku kon mooy wane ni xamut li xew donc loolu mooy li nga xamante ni bi Euh, mooy li ma koy tontu parce que jëf yi defe naa ni leer na ci bopp képp koo xam ni yaa ngi suivre parce que boo seetee def nañ fi ay émission yoo xamante ni bi sax dañu ne cag-cag yi arrêté leen mës nañ def émission bi daal waaw lan mooy xew gars yi xanaa ñi dégguñu li kiy wax mm. préfet bi mu xoolee ba gis ni ndigal li gars yi jëfee nañ ko moo tax préfet léegi moom it du yàq pili naan bu fi kenn def léegi bu fi kenn def laa waaye gis na ni bi ñuy wootee ne dañuy woote ci parcelle bi ngir def meeting d'investiture dañ ne du fi amee parce que lu ñuy bañ mooy mbooloo ba nga xamante ni ñoo fa nar a teew kon xam nañ ni bu fekkente ni ñoom ci seen jëmi bopp joxe nañ ndigal ndigal loolu dinañ gis ni ña leen sopp di patriote yi danañ ko jëfee kon nag lii nga xamante ni bii nag mooy li xew loolu waru koo jaaxal benn yoon beneen bi mu ñëw ci le cas Habib Eh, Badara Gadiaga ni ma déggee mooy Habib Sy nee na moom xamul fu muy taxaw. non dafa tiit moom Badara Gadiaga ah waaw choix Habib Sy da koo tiital moo tax muy dal ci kaw Habib Sy Habib Sy defu ko dara leader moo wëndeelu ba kenn xamatul ban fan lay teg tànkam moom leader am moom moo wëndeelu ba xamatul fu muy teg tànkam léegi nag li mu njort ni mi ngi nar a wutali Habib Sy naqari ko. léegi looloo tax muy dal ci kaw ki nga xam ni mooy Habib Sy parce que Habib Sy defu ko dara moom ba ñuy tànn Habib Sy ka tànn Habib Sy ba mu koy tànn waxu ko lii la ko tànnee la tax mu tànn ko waxu ko Habib Sy rek la dégg mu wax te Habib waxut ne lii Habib Sy dane lu ñuy waxtaanee la ndax ñoom nan lañ ko bëggee parce que Habib Sy moom dafa wax ni mën na proposer boppam comme nekk jàlluwaay mm-hmm. jàlluwaay boobu nag mën nañ cee waxtaan mën na doon diirab juróom benni weer mën na doon diirab at at mais sans dépendre nit ñi ñooy xool ña nga xam ñoo lay wax ñoom ñoo ciy waxtaanee pour mu nekk rek jàlluwaay pour ñu defar institution yi. Badara nee na loolu yàq xaalis la. non Badara xamut luy yàq xaalis ak lu dul yàq xaalis. tëgg fi élection Badara Badara. Badara daal day gone goo xam ne yaroo na. ci keppaar alaaj ki booy la sama booy la kanam. <laughs> maa ko mag booy la bi muy nekk ci booy euh, booy réew mi booy réew mi ah, la nekk réew mi. Hmm. moom ak ñoom booy Cerno bokkum ak yooyu ñooñ ñëpp samay booy lañ. léegi nag maa ngi bëgg a yàgg ci wàllu politique bi Barth xaritam la ne bi bi affaire bi di xew ma ngaa woon ak xam nga waaw donc Badara hmm. yii muy yii muy def nii maanaam kull ku nekk ci système bi tiit nga tey jii Idriss Seck bu sañoon mooy nekk place Habib Sy bu mënoon nekk place Habib Sy tey moo fay ne dana ko xëccoo tey jii xalifa Sall su mënoon a nekk place Habib Sy bu ko leeroon ni yëf yi mën na deme ni mu nekk place Habib Sy dana ko dana ko dana ko fa xaar waaye balaa ngay mën a jot ci lenn dalay fay fekk waaw parce que wax na ko sax nee na yow nga xam ni diw mii dañ dafa nar a sacrifier boppam. waaw nga fekk ko ci sacrifice ah, yooyu. ñu ah, nërmeel ko sacrifier sacrifier du loolu du sacrifier sax maanaam euh, li mu tuddee sacrifier sax du sacrifier abis yi dafa joxe rek benn exemple pour wan nit ñi li Ousmane Sonko def ni mu toll rëy gi mu rëy parce que abis da lay wan nag ne la daf la jox dimension Ousmane Sonko wan la ni la bokkut ak politiciens yi ni ñuy xalaatee parce que gis nga politiciens yi yëpp. ñu ci bari jaar nañ ci même situation bii nga xam ni moom la Ousmane Sonko jaar mais biñ ci jaaree kenn ku ca nekk ci ñoom doxaleewut nii Ousmane Sonko doxalee bu dul man du doon keneen la ñoom ñëpp ñu doxale man lay doon wala mu du bañ a doon keneen tey nag Ousmane Sonko rek mooy moo toll ci situation bi ak li mu liggéey yëpp mën koo jël joxe ko moo lay wan ne la mu doon wax ne du sunu bopp maanaam mën nañoo joxe suñu bopp ngir réew mi maanaam. du woon rek ay waxi kese mais dafa ànd ak ay jëf jëf yi nag mooy acte yi nga xamante ni bi bi nga koy teg nit ñi di ko gis mu ne fàgg donc loolu mooy li nga xam mooy ne maanaam euh, li tax mënul comprendre li Habib di wax maanaam ñoom ñii genn wàll yëpp dañuy dugg ci politique pour am dugg ci politique ngir servir réew mi mais dañu dugg ci politique bi ngir gën a ñoŋal seen ak dund loolu moo leen différencier ak ñi nga xamante ne bi tey ñooy waa Pastef moo tax it waa Pastef dañ leen di surprendre tout le temps parce que bokkuñu gis-gis ci wàllu politique parce que ki nga xam ne daf ne naa politique yi pour am ak ki nga xam ne daf ne naa politique yi ngir li nga xam ni moo tee nit ñi am maanaam jubadi gi fi nekk ma fexe ngir mu jub bokkuñu gis-gisu nu ñuy doxalee moo tax dañ doon juger Sonko en tant que un acteur politique su Ousmane Sonko mas na wax ne man du ma politicien te mu leen waxoon mi ngi koy jëf parce que Sénégal ni ñu jàppee politique ak ni nga xam ne moom conviction ak ngëm-ngëm bi mu jàppee politique bokkul moom jàpp na ni réew mi lañu ñu war a defar ñii nag ñoom ja ñu ci bari jàpp nañ ni ñoom dañoo war a ñëw ngir defaru ki war a ñëw ngir defaru nag ak ki war a ñëw ngir defar bokkuñu gis-gis. te loolu mooy li nga xam ni moo commencé di kii léegi nag ñoom defe nañ ni lii ñuy wax ci plateau yi mën na indi ak jiixi jaaxa ba nit ñi weddi Habib gis nga patriotes yi amuñu lu ñuy gën ci Abou si amuñu lu ñuy wedd ci Abib Sy ak jëmmam ñoom xam nga lan lañ am Sonko lan la gëm ci diw lan la leen wax ci diw loolu lañ gëm lépp lu leen Sonko wax loolu la ñuy doxalee te loolu mënuñu cee déjouer benn koo xamante kenn koo xamante ni kii tey euh, kii nga maa tax seen combat bi dañ koy perdre d'avance parce que ñi nga xam ne ñoo ànd ak Sonko wax nañ leen lu leer ne leen ñun dégluwuñu kenn ku dul Sonko kon ñoom bu dee dañuy wax ngir yàq. dañuy sonal seen bopp rek parce que ñee moom jàpp nañ li ñuy jàpp te kenn mënatu leen a wëndeel ci lii ñu ne manipuler yii ñu daan def jaar ko par les chroniqueurs ñu nekk mel ni ñu maandu di wax ci mbir mel ni kuy joxe seen xel te lépp dafa am lu mu rax loolu sénégalais yi xam nañ ko te képp koo fiy def da ngay sacrifier sa bopp. il faut que ñu daal di dellusiwaat te xam ne nit ñi yeewu nañ yàgg na. d'accord mm-hmm. <laughs> jërëjëf ñu ànd ak nag euh, ci kàddu yu mu yëkkati di tooñ Anta Babacar ne jaaykatu ginaar bi ñu déglu ko te dellusi. Bassirou Diomaye Faye moom xel mënta nangu ñu taxaw naan mais mais yéen ñu may seetaan sax xam ngeen ni taxaw ne Bassirou Diomaye Faye matalul parrainage alors que jaaykatu ginaar bi matal na xam nga loolu rek yàpp sénégalais yi weesu ko la ma leen fi waxoon ñëw na xam nga man samay wax su ma koy wax ñu bëri dañuy defoon dama koy wax noonu rek di sànni nee woon naa leen fi surveiller leen jaaykatu ginaar bi jaaykatu ginaar bi moom ñoom réeroowuñu ci bi la bokk jaaykatu ginaar bi ci système bi la bokk ñu bëgg a taxaw ni jaaykatu ginaar bi am na ay parrainage mais Bassirou Diomaye Faye amuli parrainage mais ñi ñoo bëri caaxaan loolu nu mën a nekke nan la jaaykatu ginaar bi di amee ay parrain te Bassirou Diomaye Faye du am ay parrain yow jaaykatu ginaar bi ku ko xam Anta Babacar Ngom ci système bi la bokk comme ci système bi la bokk moo tax ñuy wuti pexe pour jàllale ko pour mu nekk candidat pour que bu ko defee ñu ne am na benn jigéen bu bokk pour jéem a éliminer Mimi Touré Mimi Touré loolu tax tu les déranges Mimi Touré effectivement depuis que nga bokk ci ñi nga xam ñoo xeex ba Macky amul troisième mandat Macky daf laa mere mere googu mu la mere loolu la mere Ousmane Sonko moom la mere ñun ñii ñëpp di xeex ni ko doo fi nekkee candidat pour une troisième fois ndax constitution bi moo koy bañ <laughs> jërëjëf Dambo ñu ngi koy nuyu bu baax a baax alaaji dégg nga kàddu yi mu yëkkati xam naa yëpp na antal de saa jour rek mi ngi naan ko mooy borom jaaykatu ginaar bi nee na euh, moo ko système bi réeroo wuñu itam ni mu def ba matal pare naa ci collectif bi mu doon def euh, te Basiru mu ñëw mënul jàll moom def na ko équation. waaw xam nga jaaykatu ginaar moom. Euh, wax ji moom wax dëgg fa yàlla man rafetlu ma façon bi quoi. Hmm. jaaykatu ginaar bi di ko daam dàmboo ji waxee ni loolu moom rafetlu ma ko. Hmm. waaw parce que dafa mel ni wax la joo xamante ni bii dafa xaw a laal sabotage te loolu baaxul. Hmm. nit ñi dañuy liggéey dañuy daan seen doole eh, moo xam lu ñuy liggéeyee Anta papaam moo ubbi société ay sénégalais yu bari yoo xamante ni bii ñu ngi ciy liggéey di fa daan seen doole. loolu nekk loo xam ne bi lu rafet la ci am réew parce que defe naa ne loolu euh, képp koo xam ne jublu nga ngir bëgg a defar tamit aussi tamit loo war a saluer la parce que am na yoo xamante ni bi tey am nañ alal te kenn gisut seen alal donc bu fekkente ni nit ki sunu borom may na ko xéewal mu daal di ñëw tamit am loo xam ne implanté na ko ci am réew ba ay sénégalais yu bari yoo xamante ni bi tey ñi ngi daan seen doole ci mbir moomu mbir moomu jar sa néewal mm-hmm. parce que yor na ay famille yu bëree baree bari léegi nag ñu ñëw ci cadre politique waaw man dama ne Anta Babacar Ngom euh, am jàll na parrainage pour man bon am na nu muy demee mën na ne parce que Anta Babacar Ngom dafa yor appareil parce que loolu muy wax muy sédiment googu appareil la boo xamante ni bi mën na ko permettre mu jàll parrainage parce que dañuy liggéeyandoog ay nit maanaam li nit ñi di wax social maanaam ñoom gox bu ne am na ñoo xam ne ñoom la ñuy liggéeyandool te ñooñu bu ñu demee ci ñoom di wut parrainage ñooñu mën nañ leen a jàppale Sénégal ku ne xam na ni nga xamante ni bi noonu la ñuy jàppale ay nit ci wàllu parrainage tey def na ay démarches wër na dem na ci ay gox gox loolu moom ñëpp gis nañ taxawaay boobu nga xamante ni bi moom la am léegi nag bu fekkante ni bi nag daf ko indi comme pour Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye dafa nekk fépp bokkut kii dafa war a dem fépp kii dafa nekk fépp parce que Bassirou Diomaye Faye bi Ousmane ko waxee ne euh, nañu ko ne booba la daj Sénégal nekkul ni moo doon dem di wuti ji parrain ma nga ca kaso ba pare yee doon daw si di ko wut si mm-hmm. loolu mooy différence bi donc di leen gam-gamle sax pour man njuumte la mm-hmm. parce que kenn warta gam-gamle Anta Babacar Ngom nga ne am na ay parrainage kii amul ay parrainage Euh, maanaam ne kii matalut ah kañ Bassirou Diomaye Faye ëppal na ay parrainage tey jii bu ñu doon laaj un million de parrain mën na koo génne Anta mi tey bu ñu doon laaj ci un million de parrain mënu koo génne kon bu dee nombre ñi leen parrainé Anta Babacar Ngom li pare parrainé Bassirou Diomaye Faye parrainé wu ko léegi nag lan mooy jafe-jafe ji nga xam ni moo tax ñu ne moom mën na jàll jàll na te kii jàllul voilà loolu dafa am yeneen yoo xamante ni bi tey peut-être di nga ñëw ci après ci ak Guy Marius mais dafa am yoo xam ne bi seen mandataire génnee dafa am yu ñu leen wax yoo xamante ni bii du ñoom seen erreur ñoom waa Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. mais ñan lañ mën a ay nit ñoo xamante ni bi xam nañ leen xàmme leen ñu identifier leen daal di leen di defal ay carte ñu parrainé nit ñu ñëw ñu ne ñii nekkuñu ci fichier bi loolu du problème du manqué le kii matal na maanaam lu tax léegi nag ñooñu ñu ne nekkuñu ci fichier bi foofu la problème bi ne mm-hmm. maanaam problème bi fële la problème bi ne lu tax li war a ne nekkut lan moo tax nit ki nga xam nee nañ ko am nga carte électeur def nga li ñu ne ko yow nekkoo ci fichier bi mais wax na loolu wàll loolu mooy li nga xam ni mooy mooy di jaaduwul d'accord li mu wax ne euh, moom Anta réeroowul ak waa système waaw loolu tamit papaay Anta moo ko dëggal loolu moom wet du ko du kenn du ko wet papaam moo ko dëggal papaam moo taxaw wane relation ak président Macky Sall bi mu koy wane nag boobu Anta nekkagut kandidaa boobu mooy problème mu ndengaleer bi ca la doon wax jaar-jaaram mais jaar-jaar boobu moo ko dab tey moo tax gars yi indiwaat vidéo yi pour wan leen ne leen xool leen kii bu baax. kii mook système bi benn la waaw c'est que daam bu yamale woon foofu analyse am bon day parfait mais man pour man dafa xaabaabal. ci li nga xamante ne bi mooy analyse bi parce que xaabaabal bi mooy beneen domaine bi mais bu ne woon su wéeroowut ak système bi te lii may wax papaam moom moo ko confirmé indi vidéo papaam bi teg ko kenn du weddi li nga xam ne moom la wax parce que loolu mooy li nga xamante ne bi mooy dëgg mm. man jàpp naa ni euh, ni ni ñu xaritoo ak euh, président Macky Sall tey buñ tëb tëbee ñemee osé te koo xam ni yaa ngi nekk li nga xamante ni bi moom la ñuy wax Euh, privé di liggéey depuis kenn déggu la ci dara ñu jekk-jekk sa doom xëy rek daan ne cëpp lay ci wàllu politique gi man damay jàpp ni ak fi politique bi toll nii tey nga yor yenn mbir yi duñu ñu di teg mbir yi man damay ragal ni déggoo am na ci ba pare laataan sa doom di dugg ci langue politique gi moo tax réeroo man gëw ma ni réeroo nañ hmm. waaw gëw ma ni euh, Anta Babacar Ngom président Macky Sall réeroo nañ gëwuma ko man moom gëm naa ni euh, mburoog fëriñ la rek mburu <laughs> faf ko fariñ waaw man moom loolu mooy li nga xam ni mooy sama ngëm-ngëm ci mbir moomu quoi ay ca mi ngi noonu en tout cas li too xam daa yàggul yàlla na ñu yàlla may ñu fekkee ñun ñëpp rekk li ci kanam raw li bët ñu jeexalee nag ak Guy mari Sagna révélation yi nga xamante ni def nañ ko euh, par rapport ak conseil constitutionnel ak euh, clé USB yi interprétation yi ñu ci indeek euh, am na ay kàddu yu mu ci yëkkati ñu dem déglu ko moom itam delsi ñun suñu ay techniciens ñun itam génnee ñoom seeni i clé seen machine seeni ordinateur seen i xarala wan ne conseil constitutionnel li mu wane dafa inventé conseil constitutionnel li mu def du dëgg dafa dugg ci biir conseil constitutionnel jël suñu clé soppi ko changé ko te loolu fraude la et ça ne passera pas duñ ko bàyyi mu jàll nous les invitons à un débat public technicien contre technicien ndaxte jàmm ci Sénégal jar na ko donc jàmm ci Sénégal jar na ñoom ñu indi ndaxte tuumal yi suñu techniciens yi teg seen ndodd diis na diis boo xam ne foog ñu setal seen der et nous les invitons à un débat public clé contre clé ordinateur contre ordinateur fichier contre fichier données contre données askanu Sénégal atte ñu ndaxte ay borom xel rek ñoo ay borom xel rek ñoo fi nekk voilà jërëjëf alaaji nag man li ma jaaxal ci wax ji mooy euh, su ma juumul bu conseil constitutionnel di saytu mandataire bi dafa war a taxaw kon diggante boobu naka la euh, mën changer ay clé ba ñu wax ne dafa falsifier walla euh, inventer loo xamante ni nii nekkul waa xam nga li am solo man li Guy Marius Sagna wax lu garaaw la trop mais lu tax garaawul ci réew mi c'est que foofu la problème bi ne maanaam Guy Marius wax na ko mais nit ñi consommé nañ ko ak comme si daal lu war a ne la maanaam jox nañu xibaar kii nañ ko rek c'est comme si euh, ma jigéen tey ndekki na mburoog ton la ndekkee xibaar xibaar bi loolu loolu nuru mm-hmm. loolu mooy li garaaw mm-hmm. parce que gis nga ma jigéen waaw gis nga réew bu ñu demee ba li ne war a nekk scandale maanaam li nga xam ne bii doonut yoon nit ñi ñu mën leen koo wax ñu jàpp ni yoon la sax parce que nii la système bi di demee moo lay wan ne kon jàngoro ji sori na lool lool lool lool. est-ce que dana neex a jàngoro ji sori na lool lool lool. parce que <laughs> parce que fi mu toll nii li mm. Guy Marius def. debaa dafa waroon a judd fépp. moom kay wax na ko sax. ñi war a yore wàll yoon buñ demee ba tuumaal leen ne leen dangeen ngeen a soppar ñi ay mbir ñoom ci seen jëmmi bopp waroon na am ñoo xamante ni bi même bu dee dañ ne juge yi duñ génn di wax war nañu communiquer war nañu wax parce que am na ñoo xam ne war nañu waroon a génn. communiquer ci yëf yi wax ci yëf yi. lii dafa waroon nekk débat yoo xamante ni bii tey débat bu rëy la mais xoolal c'est comme si rien nit ñaa ngi ci leneen maanaam loolu moo lay wan na la réew mi am na problème am na problème dëgg dëgg dëgg problème bi réew mi am nag jàpp naa ni euh, incha allah hmm. dana defaru ah, parce que lii lépp lenn la ci ay jafe-jafe yoo xam ne rek hmm. sénégalais yi ñi ngi koy gis euh, te dinañ ko regle parce que lépp li ngay gis nii muy daw ci réew mi mm. leen doo nga koy régler. li ngay bay bayal ndax dina neex a nag. leen doo nga ah, koy régler incha allah le vingt cinq février. Mm. ñi ko bëgg a régler mm. ñëpp daal di farlu wane fulla ak fayda teel a yeew. te la dem defi ji li nga xam ne moom la war a def ñëpp nag amul kenn koo képp koo xamante ni lii xew rek jàpp nga ni jaaduwut koo xam ne dama jàpp nga ni jaadu na nga tëdd ne jaadu na. ak problème bi ñu wax ci fichier yi ñi seen jóg rek na ñépp jóg rek. massivement doon benn bopp. daal dee dem def li war a def voté loolu rek la amut leneen. loolu rek la képp koo xamante ni lii xew naqari na la nga jàpp ni lii kat wax dëgg fa yàlla gis nga ni amoo fenn foo ko war a jooy ba am nga bés boo xamante ni bi yow war nga mën a toog ci mbañ gàcce yow kepp yaag sa borom nga ne ah li xew ci réew mi de wax dëgg fa yàlla ndax réew mu mel nii sëriñ Cheikh waxoon ni réew mu amut justice nan la fa nit di dundee nga am nag yow occasion pour delloo si loolu nga xam ni moom la sëriñ Cheikh waxoon ngir ne ah dama war a fexe pour yoon dellusi ci dikk dëkk bi. nga def li nga war a def. di def li la neex di jàll di jàll est-ce tamit dinañ duñ dem ba. non non lépp loo gis ci doo am sax possibilité comme li ngay ah, wax nii pour a dem vote ji. tranquillement changer nit ñi dinañ vote incha allah. nit ñi dinañ ci kàttanu yàlla. Ah. nit ñi dinañ jóg def fulaak fayda dem vote ji waaw nit ñi dinañ jóg. bii yoon élection yi dina nekk élection yoo xam ne jàpp naa ni hmm. euh, dina nekk élection yoo xamante ni bi mustaam ak jalgati yi ñuy wax am na si jël loolu yëpp bu nit ñu jógee dëggantaan voté jalgati yooyu du représenté dara hmm. na ñëpp jóg rek na nit ñëpp jóg dem voté ji parce que loolu rek mooy li am solo hmm. sénégalais yëpp nañ leen woo bés ba jot ñu jóg dem voté ji yàlla baax na ñu ko ci yàlla baax na ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw ma jigéen di am mbégte. di joxante dig daje incha allah beneen altine. ci l'émission des émissions. incha allah rabi jërëjëf euh, sa euh, ñi ngi rafetlu bu baax a baax xalaat yi tey jaajëfal nag képp ko xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel ci l'émission des émissions jaajëfal Modou Diouf Abdou Top ak Laye Diallo jox leen di daje beneen leen di ci l'émission des émissions.